président mënoon na invoquer la ses pouvoirs cinquante euh, exceptionnels euh, lui euh, à lui conférés par l'article cinquante deux et vous parlez d'une crise entre les institutions waxu crise boobu fan la jógee c'est le parti démocratique sénégalais qui fait qui dem qui qui qui fait demande de mise en place d'une commission d'enquête qui accuse le premier ministre votre candidat d'avoir corrompu les juges du Conseil constitutionnel pour rejeter la candidature de Karim Wade. Des accusations non documentées. L'opinion n'est pas encore édifiée sur la véracité de ces accusations xaaral rek may ma rek j'assume tout ce que je dis ñu gaawantu ne dañuy def commission parlementaire euh, et puis ils ils obtiennent l'onction des députés de Benno Bokk Yaakaar ñu taxawal commission d'enquête parlementaire commission d'enquête parlementaire kay nañu commencé seen liggéey waxatuñu waxu commission d'enquête parlementaire ba ñu dem dugg ci modification de l'article 31 pour proroger de manière conjoncturelle le mandat du président de la République et même euh, euh viser li nga xam ne moom mooy la clause d'éternité qui entoure la question du mandat oui oui oui oui oui oui oui c'est-à-dire euh, est-ce que teg nañu ci loxo sénégalais yi luy wane ne y a une vraie crise est-ce que on n'a pas créé une fausse une une vraie fausse crise pour aboutir à une vraie crise. question la wala accusation. c'est une question que je vous pose. est-ce qu'on a mis entre nos mains. da nga da ma laaj pour ma wax la li ma ci xalaat. des arguments qui peuvent prouver qu'il y avait une vraie crise est-ce qu'on n'a pas créé une vraie fausse crise qui nous a amené aujourd'hui dans une crise très profonde. Maïmouna. moi je ne vois pas la crise très profonde bi ngeen di wax il y a eu un conflit un entre institutions il y a eu deux un conflit d'interprétation comment le conflit entre les deux institutions s'est manifesté mais bu bu benn institution nga xam légalement selon les dispositions du règlement intérieur ñu ne bu ngeen dem amee di set députés man ngeen a ñëw proposer ñu indi leen une commission d'enquête defe naa loolu la noonu la tudd parlementaire ñu indi ko teg ko ñoom ñu ne mën nañoo inter interroger toute personne toute personne noonu lañ ko jëlee ñu jàpp war nañoo mën a woo waa kër cour constitutionnelle ñu ñëw wuju leen ñu ñu ci jiiñ à partir de ce moment on est on, on s'achemine vers des risques majeurs pour la stabilité institutionnelle du Sénégal léegi li li nga xam ne ci li nga wax li nga xam ne moom nga ci war a bàyyi xel moo di ne Maymuna du rek benn problème problème yu bari la yu dajaloo laata problème boobu di ñëw opposition bi ñoo bind wax partout gis ngeen enregistrement yi ne Macky Sall en tant que garant de la bonne marche des institutions yow yaa évoqué article boobu sànq na arrêté processus président dégluwu leen encore une fois le report a été voté par l'Assemblée nationale qui a en sur la base de ses prérogatives et d'une majorité qualifiée loolu moo am may mun a maintenant li mu jur li mu mën a jur nañ yaan yàlla mu ja doon jàmm en tout cas ñii ñi nga xam ne li nga xam ne am na c'est une mesure de sauvegarde boo xam ne dama ni même bu dee faiblesse maanaam jafe-jafe bu muy indi wala lu muy wàññi ci ñun mën naa mën nañu ko transformer def ko opportunité opportunité boobu mooy waxtaan ba suñuy texte ñu améliorer ko ba suñu jaloog mu jur comme ni ko ñaari chef d'état sénégalais ñaane mu jur loo xam ne jàmm lay doon jàmm ju yàgg. xam parce que jàmm ju ñu bricolé may mun a jàmm ju ñu bricolé mooy indi toujours crise ci réew jàmm kenn du ko bricolé jàmm dañu koy waxtaanee dafa am lu ñoo wooyee ci ñun euh, sunu langage une communication intégrative. communication intégrative boo ko dee def mooy da ngay déglu ku ne lan mooy mbébétam ak